lan mooy problème bi diggante Babacar Ngom ak paysan wu Ndingler yi. ak lu tax ñu cité ko ci. xam nga bi ñu ma bi ma Ndingler tuddee ba fàtte ma. la ma Sénégal yi door a xam. 2012 Ndingler génn nañu woowal fajiri takk sagari xong boobu xamuñu Babacar Ngom. 2013 Ndingler xamul Babacar Ngom man lañ xamoon ci rajo yeeg télé yi ak réseaux sociaux yëpp. Euh, euh, loolu le problème de Ndingler dama noonu duma ci wax parce que li ci yara wax président Babacar wax na ko. nee nañ yow intermédiaire nga. duma du ma mooy ku nekk ci pegg ndengaleer euh, le problème suufu jilaax sax laay wax. ñekkuñ hmm. suufu ndengaleer suufu jilaax bi tax waa ndengaleer di wax. Hmm. man maa ne ci kanam maa nekk ci digg bi maa nekk ci ginnaaw. Hmm. duma ma intermédiaire problème suufu jilaax laay wax. et il faut que nit ñi xàmmee Babacar Ngom ak Sedima Sedima moo am procès mais procès bi du projet Babacar Ngom Sedima entreprise anonyme la moo am procès pour di wut suuf soo xam ni daf ci war a béy pour askanu Sénégal wépp comme ni mu ko baaxoo def ñu dem dëkk bu ñuy wax Kër Samba Kane fekk fa ku ñuy wax Ibrahima xalil Fall député la mu ju may dégg conseil économique et social mooy maire ba mu jox ñu 500 hectares ñu yendu fa mu def ay teraanga suñu xarit la ku baax la mais bi ñu xoolee suuf si lim ñu jox foofu bari na mais suuf soosu li ñu bëgg a def ci procès bi ci wa ci mbéyum noor ak mbéyum nawet suuf soosu mënu ko ci la ñu repiler dellu si waat Dakar man maa dëkk Mbuur maa fa am kër am fa bureau am fa soxna am fa ay doom. di fa dund depuis vingt ans bientôt trente ans comme jaxasoo naa ak maire yi nekk ci département bi man ma ànd ak suma xarit bu ñuy wax sàmba Fall mu boole ma ak nijaayam Mansour Ciss entrepreneur bu mag la sàmba entrepreneur la d'ailleurs mu boole ma ak Mansour ni ma seet leen commune Sindia non seulement procès bi am na solo am solo goo xam ni waxuma la commune Sindia mais département Mbour yëpp mën nañ ci gis seen bopp ñu dem booba jamono c'est mille 2011 yàgg na bientôt 9 ans defe naa ñu dem ci ku ñu wax Ousmane Lo moom mooy maire commune Sindia booba kii nekk tey actuel maire di Thierno jaaj moo doon premier adjoint Ousmane loo ñu dikk tegal ko projet bi man maa indi projet bi ak directeur yi sédiments yi nga xam ne ñooy saytu loolu Babacar ñëwagul parce que Babacar du may bopp ci làmmiñ dafa ami directeur technique ci yëngu ci wàllu suuf ak lépp loo xam ne lii mais maa ko jiite ñu ñëw ak directeur yi indi projet bi tegal ko commune maire Sindia commune bi ñu bàyyi leen projet bi ñu saytu ko après un mois ñu woo ma ma woo Babacar mu yebalaat directeur yi ñu dellu si waat ñu indiwaat projet bi conseil municipal u Sindia 46 conseillers la ñoom ñëpp ñu may dégg cinq conseillers ñoo ko wate d'accord ci projet bi ndax am solo gu projet bi am solo biñ ci d'accordee bañ d'accord techniciens yi nga xam ne ñoo séq mooy mairie bi euh, domaine impo cadastre urbanisme mboolem service yi nga xam ne ñooy saytu suuf ñu ànd ak ñoom dem ci lieu bi ñu saytu ko xool ko boobu jamono tool bi su ma taxawee fii Pape Alé taxaw 10 duma ko gis ndax ay garab ak ab dédd ci la sédiment bindee ñu ne 300 hectares yi 30 millions mooy frais de bornage am sédiment bind segu fanweeri millions jox ma ko man maa dem verser ko trésor Mbour biñ paree ci loolu service yi dikk saytuwaat ko ne commune Sindia li mu am digganteem ak Fissel Mbadane ak sànjara dootu leen am deux 300 vingt 224 hectares ngeen di am moo tax nag journaliste yi il faut ñu dem lii lier di gëstu xam nga ñu ngi soow 300 hectares 300 hectares amul. c'est 224 ectare ñoo délimité ne malgré 300 hectares lañ la joxoon fay ngeen frais de bornage 30 millions mais 224 hectares ngeen am. Sidi Mané doyloo naa ko bi mu ne doyloo naa ko ci la ñu commencé déposé bàyyi. di fay baay bi gas ñetti forage forage bu ne quatre-vingts millions lañ ko gase ah bi ñu commen bi ñu gasee forage bu njëkk ba ndox mi commencé sottiku ñu commencé euh, jublu ci liggéey bi man maa jëli benn entreprise bu ñuy wax Entracom Serigne Niang moo ko moom mi ngi nekk fii di prom nekk ku mu neex nga vérifié ji ñu d'accord ak moom ci defe naa vingt-quatre millions wala vingt-huit wala trente-cinq millions en Tracom moo dikk def fa 4 mois pour daane baobab yi dindi dédd bi pour nit mun a toog 500 mètres gis sa morom ba tool bi pare moom sox dafa mujj ay machine yu bari yàqu fa ñu jëli beneen entreprise fay ko 40 million mu dindi ëkk yi ba mu leer gisuñu fa nit nit newut maa ko moom nit newut fi laay béy newut newut sama maam yàlla rek laa lay waxal ndax alal ji lu mu bari bari même su fekkee ni tey maa ko moom damay dee ba ko kon du ma wax lu dul ngir yàlla. c'est parce que ruus mm-hmm. naa. Mm-hmm. waxal Babacar Ngom muy sama nawle parce que askan ak nawle bokkut. Mm-hmm. ma jàkkaarloog moom ci biiri bët mu xam ne dama ko waxal lu mu defut parce que doonu ma loolu. ñi xamit fi ma jaar. ak régime bi fi jógee woon muy régime Wade xam fi ma jaar ak ñoom Pape ale xam na. xam na ne du ma arrière du ma daw. parce que ku war ci gaynde ba wàcc. ku war ci aw ñey ba wàcc loo war warati mu ndaw. bi yàlla dogalee tool bi leer. man béy naa fa ñaari at dama jënd ay fas jënd ay saret parce que man dama bëgg ba boo fay béy gisuma fa nit man dama jënd ay fas yóbbu jilaax jël suma benn samay xarit jox leen ay fas ak saret yóbbu kemb yóbbu engrais béy fa basi gisuma fa nit yàlla dogal bi ñu demee ba déposé baay li ñu yóbbu euh, ñaari millions yi pa koy wax li ñu yóbbu benn yoon lañ mas a dem sànjari ci àddina na bind bindkat yi bind ñuy déglu déglu meeru meeru Sandiara bi nga xam ni ci la village su Ndingler bokk mooy gànn ñi ngi mi ngi dund mi ngi may seetaan moom xam na man xam naa gànn ñi moo ñu fa yóbbu booba xam nga kan moo nekk sous-préfet Fissel Bada mm-hmm. Jibi bi nekk sous-préfet Dakar Jibi Diallo boobu mooy sous-préfet ngi may dégg mi ngi may seetaan mu ni comme yéen Sindia jox na leen suuf su mel nii liggéey bi dèjà ñëpp kontaan nañ seen xol sedd na moom mu ne man ma ci commune Sindia waaye man comme village su Ndingler moo bokk ci suma commune te maay maire bi damaa bëgg ngeen dimbale ma ma ànd ak yéen yóbbu leen présenté leen ñu xamanteeg yéen pour bu projet bi taxawee sën yi ak jigéen ñi man ci gis seen bopp ñëw liggéey si fi ndax comme da ngeen ne département bi yëpp mën nañ ci bokk waxuma commune Sindia loolu laa bëggoon. muy lu rafet mu ne dëgg bëgg ngeen nuyu ji imaam yi ak chef de ma ne ko kon dëgg leen di génne ñu seet benn place ñëpp daje fa danañu fa agsi incha allah une heure ñu déplacé moom gànna ñing mm-hmm. mi ngi may dégg mooy meeru Sandiara mooy meer ba mm-hmm. man ak Babacar ak kenn ci ñaari ci technicien ñu ànd ker lañ mos Babacar mus Babacar boo ko joxaateen milliard munul dem Ndingler man soo ma joxaateen milliard malgré wër naa àdduna bépp munumaa dem Ndingler benn yoon lañ fa dem c'est à 2013 su ma juumulee ñu ñëw fekk paa yi toog di nu xaar 9 ba une heure ñu ñëw nuyoonte ñoom saafoonte vraiment ñu toog waxtaan gànna présenté Babacar ne ko kii mooy jiite projet bii Sedima am fii ci jilaax ñu buggoon ñu ñëw. siyaare leen waxtaan ak yéen ndax dëkkandoo jàmm ci gën bis du ñàkk. Mhm. te jilaax moom gànn mi ngi may dégg mu ni mu ni ndengaleer jilaax ko jur. kon ñooy takkantey sëy di bokk ndey di bokk baay kon bu jilaax amee projet bu mel nii ndengaleer war naa fexe ba bu ëllëgee seeni ndaw di ci liggéey. Mhm. ñu waxtaan communion waxtaan ak ñoom. Mhm. ni ko Sénégal yëpp di defee xalif généraux yi sëriñ si di ko def teraanga. Sénégal réewu teranga la nga toogloo ay mag 9h ba 1 ci bëccëg ba Pape Alé Niang mhm. Babacar joxu leen xaalis maa ko ne Babacar nañ leen jox njëgu suukar yëkkati 2 millions jox leen. paay est que loolu du forme de corruption. mais forme de corruption lu ñu leen di. Mhm. corrompre nit ku am 224 hectares. déposé bàyyi ba am ko looy ko te yoruñ yoruñ seen ñun demuñu fan pour négocier suuf et puis 2 millions 220 hectares 224 ectare même su fekkee ne ñoo ko 2 millions dana ko joxe man may jënd man may jënd benn hectare 50 millions ci ci département Mbour xam nga dafa am loo xam ni Paco bu bu nit ñi dofe bu xel yi dafa am loo xam ni nit ñi dañu cuqutaan seen xel demuñu fa pour corrompre leen parce que seq ñoom lañu di corrompre laajuñu seen suuf mayuñu nu suuf seetuñu leen wutiwuñu fa dara soxlawuñu seen suuf demuñu seen commune ñun ñoo ngi nekkan ci commune Sindia nekk ci suufus jilaax gànn ñi moo ñu fa yóbbu pour ñu dem communion ak ñoom waxtaan ak ñoom ñuy dem man mën nañ leen may xaalis pour teral leen loolu ñu fa yóbbu te loolu bu ñu dikkan 2S gii wala ñu dem RTS fu man fu ma dem ci àddina gis koo xam ni jàpp naa ne tane na man may ànd ak man may ànd ak Babacar Touré wala Babacar Ngom ñu dem ci àll bi di tukki ma seen ay jigéen nekk ci teen ma ne ko jox ma téeméeri junni mu jox ma jox leen ko barke Seexul Xaddim loolu mais demuñu demuñu ndengel ndengeleer gànn ñi ngi moo ñu fa yóbbu mooy maire Fissel mooy maire Sandiara moo ne nañ dem waxtaan ak ñoom siyaare leen comme ay dëkkandoo lañu te la preuve mooy bi ñu déposé baay ba am baay fay ko pendant trois ans mu metti dañ nañ déposé titre bi ñu déposé titre ba am ko forage yi bënn ndox mi neex première récolte haricot lu mu néew néew 60 personnes wala 100 personnes gën jóge nañ ca dëkk booba ñëw ci commune bi amul ci zone boobu ñoo xam ni dañuy xëy liggéey si ba 3 heures comptable bi ñëw fay leen bi ñuy def récolte soble la même chose mais li ma gën a yéem ci suuf coow li entre sant parce que du ma xamatuma ci man réew laa ne. ah léegi léegi d'accord nga ci coow bi kon instant. mais léegi nga yegg foofu